bâtiment bi ab résidence bu mag la boo xam ne ay suite la def nekkee ci résidence Khadim Rasoul bi nekkee ci daaxul Daarul naan toll ci juróom-ñetti salon ak ñeenti chambre benn bu ci nekk ànd ak salle de bain ñu liggéey ko équipé ko def ci lépp loo xam ne war na ci am ci jumtukaay waa kër Serigne Mor Ndoumbé Xabbaan Mbacke ñoo ko liggéey ci njiitalu xalifa bi di Serigne Ibra Mbacke ànd kook jëwrinam di Serigne Cheikh Bintu Mbacke ak mbooleem njabootu Serigne Mor Ndoumbé Xabbaan gi ak taalibe woon ci Cheikh Sidil Maxtar Mbacke yàlla na yàlla yokk ay leeram taasu ci barkeem liggéey bi nag ñu liggéey ko ci noo xamante nii mucc na ayib lool. man nag maa ngi tudd Serigne Ibrahima Mbacke doom si Serigne Cheikh Bintu Mbacke maa doon taxaw liggéey bi durant biñ ko yoree si deux ans et quelque ñaari at ak genn wàll moom lañ yor liggéey bi ànd ko ñii si sama ginnaaw mooy ouvrier yi. liggéey bi nag résidence lañ ko programmé résidence présidentielle. si làmmiñ sëriñ Bass Abdou Khadre lañ ko jëlee ñu wax ne kër gële dafa jege Touba jumaa ji fii dañ koo bëgg a defar ba mu ànd ak jamono ndax buñ ñëwee dana yaatu yaatuwaay goo xam ne suñ ñëwee danañ ci mën a ne euh, kër gi nag toll na si 33 mètres si longueur yaatuwaay si cinq huit salon la quatre chambres mooy bâtiment bi néeg boo ci gis am na saal de bain salle de bain 6 mètres la bâtiment bi nag wax dëgg yàlla kenn du ne euh, defuñ ci dara kenn du ne tamit defuñ ci xaalis waaye lépp luñ fi def rek dañ koo bokk ak taalibe yi ñu bàyyi seenu ñaq lépp ànd kook sëriñ bi ñun tam ñu bàyyi suñu yitte yëpp chaque jour fi la ñuy xëy huit heures la ñuy xëy si ànd kook ouvrier yi cinq heures la ñuy wàcc. liggéey bi àgg ñu war koo jébbal Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides waaye lu ko jiitu indi nañu caabi ci ki nga xam ne moom moo di Serigne Ibrahima Mbacké mi xalifa njabootug Serigne Mandoumbe Xabaan gi mu ñaan ci am mbégte lool ci taxawaay bi nga xam ne amal nañ ko ci liggéey bi ba mu àgg ci alxamis ji nag dëppoog 24 juin 2021 ci bi 13h jotee la Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ñëw ngir visiter bâtiment bi ñu jébbalaale ko li nga xam ne moom moo di caabi Serigne bi bi mu agsee amal na visite bu yaatu boo xam ne ci biir suite yi muy chambre yi ak salon yi lenn lu ci nekk ñu leeral ko ko mu am ci mbégte lool ginnaaw bi Serigne Cheikh Bintou Mbacké présenté ko mboolem njabootuk Serigne Modou Ndoumbe Xabaan gi nga xam ne teewoon na fa ak taalibe yi ci la sëriñ bi yëkkati kàddu bég lool ci liggéey bi nga xam ne defar nañ ko waaye biñ koy jébbalaale caabi joxaale ko addi yu takk lool joo xam ne moo nekk ci valise bi di ay millions yu bëri. mbégte mu rëy rëy rëy. mu ne mi ngi amati mbégte mu rëy rëy rëy. jéego yi ma jéego ba agsi fii ci ci liggéey bii. ci jéego yi mu jéego ba agsi fii ci liggéey bii nee na am na ci mbégte mu rëy amati na ko ci mbégte. amati yi cant gu rëy rëy rëy. nee na mu amati yi cant gu rëy rëy rëy. ndax taxawaay bi xam nañ ko. ndax taxawaay bi nee na xam na ko. turu. sëñ Mandoumbe tur bi képp fu déggee rek mu doy ma ab soññ ci man nee na turu sëñ Mandoumbe su mu déggee turu rek mu doy ko ab soññ ci moom bopp ci taxawaay bii taxawaay bii kon nag lii ci man la nee na kon lii lu sori ci moom la waa kër Cheikh Mandoumbe teew fi waa kër Cheikh Mandoumbe teew fi liggéey liggéey bu toll nii. liggéey liggéey bu toll nii. bu fekkoonte ne àndutu woon ak dara itam. su fekkoonte ne àndutu nag dara itam ci muy at yi yéeg ni demee. kon mu doyoon sëkk. kon mu doyoon sëkk. rawatina boole ci liggéey bi. rawatina nag boole mu ànd ak liggéey nga xam ne ci suñu liggéeyu bopp suñu liggéeyu liggéeyu sëñ bi bu bee ñu semb ca jëm. nga xam ne liggéeyu Sëriñ Tuubaa bu rëy bee mu semb. te li ngeen ci boole ci la ca loolee la jëm. loolu nag noo ngi teewlu bu baax a baax a baax a baax. nee na kon nag mi ngi teewlu bu baax a baax a baax a baax. di gën a yeesal sunu jaayante. nee na muy gën a yeesal ak jaayanteem. di leen ko seereel. di leen ko seereel. gën a feddali sama laxasaay. gën a feddali ak laxasaayam. fas yéene ko ànd ak yéen. fas ko yéene ànd ak yéen. loolu ab soññ la bu rëy rëy ci man. nee na loolu ab soññ la bu rëy rëy ci man. seen taxawaayu bopp bi. seen taxawaayu bopp bi. mbégte mi mu ci am. nee na mbégte mi mu ci am. amul fu mu yem. amul fu mu yem. cant gu rëy ci am. cant gu rëy gi ma ci am. amul fu mu yem. amul fu mu yem. xanaa fa kaw kanam sëriñ boroom liggéey bi rek. xanaa fa kanam boroom liggéey bi rek. ñaan rek bu baax. ci barke bi bu baax ci barke sëriñ bi. taxawaay bu bu rafet bii. taxawaay bu rëy bu rafet bi xam ne lépp liggéey sëriñ bi la. xam ne lépp liggéey sëriñ bi la. liggéey boo xam ne taxawaay boo xam ne ñu ngi ko sof ca taxawaay bu mag boobee nga xam ne moom sëñ Modou Ndoumbé taxawoon. taxawaay bu rëy bii nga xam ne da ngeen koo sof ci taxawaay bu mag boobee nga xam ne moom la sëñ Modou Ndoumbé taxawoon. Eh, muy taxawaay boo xam ne xel dóor ci mënu koo dab. nee na taxawaay boo xam ne xel dóor mën koo dab. waaye lañ ca mën a xam ne xam nañ ko. waaye lan ca mën a xam nag xam nañ ko. ci diggam ak sëriñ bi. ci diggam ak sëriñ bi. na mu taxee woon. na mu taxee woon moom Cheikh Ahmadou Mbe. bu njëkk bu mujj. ci bu njëkk ak ci bu mujj. xam na lépp. nee xam na lépp. loolu nag maa ngi sant yàlla sama cant sama sant sama cantu bopp. nee na nag mi ci cant yàlla cantu bopp mi. si boole gii ñu. ñu boole liggéey bii. di ci boole. liggéey bi boole gi ñu boole ci liggéey bii. di sant boole ci cant googu boole gi ñu boole ci liggéey bi. ma dem ban ban ban ah, ban bokk liggéey bi. mu dem ba ngeen bokk liggéey bi. loolu cant gu rëy la ci moom. nee loolu cant gu rëy la ci moom. ndax bu fekkoonte ne dama ko dama ko doon dégg rek. wax naa su fekkoonte ne da ko doon dégg rek. muy taxawaay bii. muy taxawaay bii kon mu doy ma sëkk. nee na kayit mu doy ma sëkk. waxuma laa nag. nee na waxuma laa nag. tawfeex ji ma ci am. tawfeex ji mu ci am. bokk ki yéen bokk ko yéen. bokk ak yéen liggéey bi. ànd koog yéen. ànd koog yéen. bokk teew fii ci njaboot ànd ak yéen ci teewaayu njabootu sëñ Madoumbe ak ak mboolem taalibe yi. ngeen bu bokk teew ak yéen yéen mboolem njabootu Cheikh ak taalibe yi Cheikh Madoumbe yi. mu bokk ànd ak yéen teew ci jataay bi biir liggéey bii. loolu sama xel mësta xalaat loolu mën naa am ci man. nee na xelam xalaat ne tawfeex ju rëy jooju mën naa am ci moom. jàppoon naa ne lu ma jomb la. mais jàpp na ne lu ko jomb la waaye dara jombul. dara jombul noonu rek la demee. nee na kat noonu rek la demee. teewlu gii ma teewlu. nee na teewlu gii mu teewlu. sëriñ bi xam na ko. nee na sëriñ bi xam na ko. sëñ Manoumbe xam na ko. sëñ Manoumbe xam na ko. ndax xam na ne lépp moo lépp lépp lépp moo ma. ndax sëñ Manoumbe xam na ne lépp moo ma. kon nag ñoo ngi ci gën a fedd suñu su su gën a gën a gën a yees suñu jaayante rek gën a fedd suñu suñu laxasaay rek. nee na comme da ciy gën a fedd ak jaayanteem rek gën a fedd laxasaayam rek. parce que ko gën a ànd ak yéen parce que yéen a gën a ànd ak yéen rek. sama xol sedd na guy. nee na xolam sedd na guy. xel dal na rëteex. xelam dal na rëteex. di ñaan rek mooy suñu suñu borom muy defal ko dindi. nee di ñaan rek suñu borom muy defal ko dindi. mu gën noo gàttandoo ak tawféexi sëriñ bi rek. gën noo gàttandoo ak sëriñ bi. yéen a gën a xam seen bopp. yéen a gën a xam seen bopp. yéen a a xam it la ngeen bëgg. yéen a gën a xam it la ngeen bëgg. waaye suñu borom moo leen ko gën a xam. waaye li ngeen ko xam xam suñu borom moo leen gën a xam. loolu leen di ñaan ci barkeem sëriñ bi. kon mi ngi leen ñaan ci barkeem sëriñ bi. borom gën leen a gàttal ak tawfeex sëriñ bi. borom gën leen a gàttal ak tawfeex sëriñ bi. seen seen mbiri biir. seen mbiri biir. ak seen mbiri bit. ak seen mbiri bit. seen mbiri tey. seen mbiri tey. ak seen mbiri yàlla. ak seen mbiri yàlla. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. mënuñoo wax li nga xam ne moo nekk ci suñu xol. nee na li ci xolam mënu koo wax. mënu koo wax. waaye borom liggéey bi xam na ko. waaye borom liggéey bi moom xam na lépp. liggéey bi xam na lépp. ki ko doon liggéeyal liggéeyam bu rëy bu rafet ba itam. ka ko doon liggéeyal liggéeyam bu rëy bu rafet ba itam muy Cheikh Manoumbe. xam na jotaay bii. xam na jotaay bii. kon nag nanu gën a sant bu baax nu itam. kon gën a sant bu baax rek. ñi am am tawfeex juree ji. ñun ñu am tawfeex juree ji. ci daje gii nu fi daje. ci daje gii nu fi daje. ci tax nu daje fi. ci tax nu daje fi. dañ see kon amati sant cant gu rëy a rëy. non non ma amati cant gu rëy a te fas yéene ci gën a yeesal suñu lépp. te fas yéene gën a yeesal lépp. weesu gën a taxaw ci liggéey bi rek. weesu gën a taxaw ci liggéey bi rek. ci biir ak ci biti. ci biir ak ci biti. sunuy xol. ci sunuy xol. ak sunuy xel. ak sunuy xel. ak sunuy yitte. ak sunuy yitte. ak sunu kem kattan. ak sunu kem kattan. lépp nu gën koo jëmee ci liggéey bi. lépp nu gën koo jëmee ci liggéey bi. suma xel gën gën naa dal bu baax a baax. nee na xelam gën naa dal bu baax a baax. ni ma ko waxoon sànq rek. ni ma ko waxoon ci biir rajo sànq. tawfeex ji ma am. tawfeex ji ma am. ba suñu borom boolewaat nu liggéey bi. ba suñu borom boolewaat nu liggéey bi. nu ànd ko. nu ànd ko. loolu tawfeex ju rëy la ci man. nee na loolu tawfeex ju rëy la ci moom. noonu seereel. sunu cant noonu leen di seeral sunu cant nee na mi ngi leen di seeral ak cantam leen di seeral sunu jaayante rek mi leen di seeral ak jaayantam noonu leen di leen di sunu cant ni leen di seeral ak cantam sunu cant ci tawfeex ji nu am ci yéen ak cantam ci tawfeex ji mu am ci yéen loolu mënuñu ko wax ci sunu mais loolu mënu ko wax ci làmmiñam dañ koy teewlu seeral seeral seeral borom liggéey ci sunu xol rek da koy rek seeral borom liggéey bi ci xolam lépp itam nag. nee na lépp itam. ma def ko ab soññu. ma def ko ab soññu. ànd kook yéen. ànd yéen. mu fas yéene sax dakk. mu fas yéene sax dakk. ci liggéeyal sëriñ bi. ci liggéeyal ko ci jaamu yàlla. liggéeyal ko ci jaamu yàlla. liggéeyal ko yit ci lépp lu baax lu mën a doon. liggéeyal ko it ci lépp lu baax lu mën a doon. boole ko sunu jaamu yàlla. boole ko sunu jaamu yàlla. am ca pastéef bu liggéeyale ko ko. am ca pastéef bu liggéeyale ko ko. ndax mënuñu koo sant. ndax mënuñu koo sant. la war ci liggéey bi it dañ koy dañ ci def suñu kem kattan rek. la war ci liggéey bi itam dañ ci def suñu kem kattan rek. waaye mënuñu ko. waaye mënuñu ko la ja war nam waree. waaye nag. waaye nag. bu nu suñu borom gàttandoo ak taw fee xam. bu nu suñu borom gàttandoo ak taw fee xam. fun fi mën a toll rek. fun fi mën a toll rek. daan ca def sunu kem kàttan. daan ca def sunu kem kàttan. Eh, la cay des. la cay des. daan ñu ko yóbbul fa fa fa fa gënal. daan ñu ko yóbbul fa fa fa ko gënal. loolu rek la demee. nee noonu rek la demee. alhamdulilah sama xol sedd na bu baax a baax. Ah, xolam sedd na bu baax a baax. di gën a seeral itam sama wëllëre ak sama Cheikh mii. nee na mi ngi leen di gën a seer seeral itam wërëlem wëllëreem ak suñu Cheikh mii. at yu bëree bëree bëri bëri. nee na at yu bëree bëree bëree bëri. suñu xol suñuy xol ànd na ko. seeni xol ànd na ko. suñuy xel gisandoo gisandoo na ko. suñu seeni xel gisandoo na ko. ñu ànd ko ba léegi. nee na ñu ànd ko ba léegi. xam naa ne ëpp na. ngeen fukki at. nee na yaakaar naa ne ëpp fukki at. xam naa ci moom ne. nee xam na ci moom ne. fu ma nekk. fu nekk. mel na ni maa nga ma nga fa. mel ne ca wetam. moom fu mu nekk. moom it fu mu nekk. mel na ne maa nga fa. mel na ne ma nga ngeen ñu gën a seeyaaral sëñ sëñ sëñ Ibra. nee na ngeen gën koo seeyaaral sëñ Ibra. gën nu koo santal bu baax. te gën ko koo santal bu baax. moom gën ko gërëmal bu baax a baax. gën ko ko gërëmal bu baax. bâtiment bi ak ni nga xam ne noonu lañ ko liggéey ak mbooleem jumtukaay yi nga xam ne moom lañ ci def laaj na saytu bu baax a baax loolee moo tax Serigne Mountakha Mbacké moom ba Bassirou xalif général des Mourides jébbalaat Serigne Cheikh Bintou Mbacké caabi yi dénkaat leen li nga xam ne moom moo jëm ci saytu gi ngir ñu toppatoo ko bu baax a baax. liggéey bu liggéey bu suuree bu sell bi bu demee nii caaxaan da ko dul toppatoo da ko dul defar te toppatoo bi rek moo ci am solo nag mu ngoog noonu ngi koy gën a dénkaane seetal ku la doy nga de ko taxaw ci taxaw ba ci war di ko defar di topp toppatoo na mu waree loolu rek moo ci am solo liggéey bi moom luñ nangu la ba waaye nag buñ ko gën a toppatoo euh, liggéey bi di gën di yees. sëriñ bi bi mu génnee ci mbooloo mi nga xam ne ñoo fa teewoon ñu takku lool sëriñ bi santaat na leen bu baax a baax gërëm leen ci taxawaay bi ak yitte gi ak pastif gi nga xam ne taalibe yi def nañ ko ci liggéey bi.